bisimilah barke borom Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq boo leen gisee nataalu jumaa ju yanj ji ngeen xam ne ñoo ngi fii ci njaareem kër gu mag di bërëb bi nga xam ne ni sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na fi fukki at ak juróom yoo xam ne nii da doon liggéeyal boromam waaye di liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa gannaaw tukki bi nag fi la daal di ñëw. di fukki at ak juróom yoo xam ne nii lépp luy karaama lépp luy xar baax lépp luy tawfeex lépp luy ngëneel sëriñ bi ware na ko fi waaye am na ko fi njabootuk sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaddim itam ñu bari ci ñoom miin nañu bërëb bi bu ñu ci tuddee ku mel ni Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo ko jëkk a wuutu fii nga xam ne nii moo di yoonu murit doy na sëkk waaye bu ñu ci tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne itam njaareem ab cëram la woon ak mboolem njabootuk sëriñ Tuubaa gi mbokk yi nag ñoo ngi dugg si ci kër gu mag fii nga xam ne nii yëru fukki at ak juróom yëpp Serigne Touba Cheikhul Khadim amuloon benn yitte lu dul wéetal suñ borom liggéeyal yonent bi bërëb bi ngeen di séen mooy fi nga xam ne nii buñ toppee taarix bi wax nañ ne fii la Serigne bi daan fete li gën a bëri waaye kër gi moo nekk nii jamono yi nag xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ni mu koy defee at mu jot mu xaram teroo mu ñëw fi nag di ko dundal ngir waajal nag bisub ñaar fukki fan ya ñaar fukki fan ya nag taarix dañuy daal di yóbbu ci bis bi nga xam ne nii moom la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoon tànnoon ngir dëkkaale yéeg boromam ci aljana jëlan ay dénkaane yu am solo jox ko taawam bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Moustapha mu taxawu ko yóbbu ko foofee ca Touba. booba ak léegi nag képp ku fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Xadim bàyyi nga xel bu baax a baax kër gi nga xam ne ni ngërëm yu ne ndam yu ne karaama yu nekk Serigne bi làq na ko fii. Cheikh Ahmadul taxa yàlla na fi yàgg loolu te wér ni leen ko waxee ñëw na nag ci suba fi nga xam ne nii moo di njaareem ñu teeru ko teral ko ci njàngum xasida xisbu tarxiya seen diggante ak sëriñ bi ñëpp xam ko jamono yi ñu féete fi di fi jàng xasida ci ndigalal sëriñ bi saa suñu xëyee ak kuréel mooy jàng ngoon gi kazalika mu war fee def nag diirub dibeer bii ba alxemes mu door a dellu Touba ngir nag bis bu màgg boobu kon fii mooy njaareem fii mooy kër gu mag jamono yi mbokki taalibe yi daayira yi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw di ziyaare si waaye gis ngeen nag ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ngir kaaraange gi ñu ngi taxaw ñoom itam jàpp ci liggéey bi bu baax a baax sapeur pompier ak ñëpp ñi nga xam ne nii rek kaaraange moo leen ñor ñu ngi fii di liggéeyal sëriñ bi fii ci Touba fii ci njaareem ci bu antal mubarak di kër gu mag kon incha allah ñu fas yéene ànd feeg yéen diir bi fi sëriñ bi nekk ci ay reportage ak lépp loo xam ne ni am na fi ñu fas yéene ngeen daal di koy mën a gis di leen ñaanal di ñaanal nag bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne jamono yi ñoo ngi fii ak moom ci biir kër gu mag di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ci barkeb Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala